ñu yegg si ci ci pandaw gi ah, ñu gisoon ne ah, donte wàll gi nga xamante ne moom lañ jotoon a gis ba fi muy wàllu ubbee gi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa taala ubbee woon saar bi di ci wax li nga xamante ne moom mooy wàllu maari yi yoon yi nga xamante ne fa lañuy jaar ba yéeg yéeg ci boroom subhaanahu wa taala boroom subhaanahu wa taala leeral fa ay mbir yoo xamante ne ci képp koo xamante ne da nga bëgg jaar ci yoonu yàlla dafa am looy lu ñuy lay taayale te it mu wane malaayika yi mi nga xamante ne ñoom la ñuy ànd ak seen kilifa muy ar ruux alayhi salaam mi nga xamante ne noonu la ñuy def maanaam muy wane tamit mi nga xam ne noonu la asamaan si ni mu bindoo te it euh, ni mu amee noonu ci zahir nga xam ne dafa am ay yoon yoo xamante ne mooy orbite yu ñuy jël nga xam ne moo tax foo foo gisee loolu da ngay gis ne du benn ligne bu droite ne mais nii lay def day day day day yéeg waaye day topp comme genre parabole lay def nga xam ne comme it escalier boo ci yéeg maanaam du benn ligne droit mais da ngay def da ngay teg sa tànk yéegaat tegaat maqaama yi noonu lay demee maanaam mu am euh, ay maqaamaat ak ay xaal loolu tamit ñu gisoon ko ak li nga xamante ne moom moo ci wërwërloo diggante maqaama ak xaal ñu gisoon tamit ci wàllu googu euh, li nga xamante ne moom mooy euh, nit ñi euh, danger bi nga xamante ne moom moo leen di gete maanaam mooy musiba bi nga xamante ne moo leen di yott ci bu fekkente ne dañuy maanaam soobu ci yoonu yàlla te ñu gisoon ci li nga xam ne moom mooy aji jomb jaajaamu mooy al mujrim yawaddul mujrimu maanaam li nga xam ne moom mooy aaya di wax ci wàllu loolu waaye tamit di wane ni doomu aadama moom niñ ko bindee mooy ak lompoñ ak yambare ak loo xamante ne xeetu yokkat la nga xamante ne euh, moo xam lu baax moo ko dikkal wala li mu bëggoon ci ay mbiram moom moo am wala li am dafa wuuteeg li bëggoon moom ci boppam dafa yaafus dafa yambare rek te euh, li nga xamante ne moom mooy li ci aju ak li ci wërwërloo ak loola na feeñee ak doomu aadama ni nga xam ne noonu la mel de manière général ba borom subhaanahu wa taala di leeral nek ni ñooñu am na ñoo xam ne dañ leen cey keccet maanaam dañ leen cey sete maanaam ñooñu mooy ay exception lañ mooy dañ leen di settee settee mooy exception dañ leen ciy settee ñooñu nga xamante ne moom mooy ñi jokk ci borom subhaanahu wa taala ñi nga xamante ne dañoo sóobu ci yoonu yàlla ñi nga xam ne dañoo yegg ci yàlla jokk ci moom borom subhaanahu wa taala ah, borom bi jegeñal maanaam ubbi leen payam xadaraam ñu nekk waa pay bu kawe bi ba pare nekk ci ñi ci gën a kawe ñooñu de dinañ mucc ci jikko yooyu nga xamante ne ak xeetu doxalin yooyu nga xam ne moom la doomu aadama amee woon ba ñu lim leen te gis ne lépp day wërwërloo ci julli waaye defam ay jikko ay doxalin ay melo yoo xamante ne yii ay ci làmmiñ lay aju mooy comme yu saddiquuna bi yawmi diin ak yu mel noonu mu am yi nga xam ne ay jëf la mooy allazina ala salatihim daimun te loolu day ànd ak wax ak jëf itam maanaam waaye mu ànd ak xol waaye ak allazina ala salatihim yuhafizun mooy sàmmonte goog loolu day ànd ak tamit xool waaye day ànd ak wax ak ay jëf ngir julli fokk day ànd ak loolu waaye ñu gisoon ci tamit ñi nga xamante ne ñoom ay jikko yoo xamante ne ay melo yoo xam ne xool kese la mooy alladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayru ma'mun mu daal ñu daal di gis tamit leneen yi nga xamante ne ñoom ñooy ay jikko ay yo xamantene ay ciir manam ñom ñokoy def moy walladina li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman man wara dhalika fa ulaika humul aadun ñu gisoon ci tamit li nga xamantene day ànd ak léeg-léeg jëf léeg-léeg mu ànd ak wax moy al walladina li amanatihim wa ahdihim ra'un waaye ñu am gisaat yeneen yoo xam te ne ba tey ci wax la aju mooy wallazina hum bi shahadatihim qa'imun maanaam nga gis kon yooyu yëpp borom subhaanahu wa taala maanaam mu jël li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon maanaam mooy garab maanaam melale ko comme garab te mooy garab googu nga xam te ne mooy garabu ngëm te garab googu noonu maanaam ni nit nit ki muy muy symbolisme sidratul muntaha waaye di si symbolisme garabu tuuba bi shajaratu tuuba muy garabu adduna bi garabu maanaam ñu ñu koy wax shajaratu kawni nga xamante plus nga koy incarner ci walu jikko ci walu doxalin ci walu jëf ci walu selal ci walu ragal yalla ci walu manam xeetu doxalin yoy yëpp ngi gis manam mu am ay mbir yu activate yu ci yow manam yo xamante mom day déterminer yow sa ay euh, manam lan lan sa pay ak ci aljana ak it ngay gis ngay transversal manam nit ki nga xamante ngay gis alcorane buy tuddu ñi wa aljana muy wax Euh, di di di insister sur le fait que dañuy gëm dëggu ci tey jëf-jëf ju sell te dañuy ragal yàlla maanaam ngir lan la ndax ngir loolu yëpp dafa làmboo li ñu tuddee shu'abul imaan nga xamante ne euh, shu'ab yooyu boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy melale mooy branche yi ngëm yi maanaam moom daf ne bi ci gën a ndaw maanaam bi ci gën a mag mooy tronc commun bi mooy branche bu mag bi mooy tronc bi mooy datt gi mooy baatu laa ilaha illallah kon mooy ngëm yàlla wax baatu laa ilaha illallah te wax jooju da ngay gis ci làmmiñ lañ koy waxee wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye mu ne waaye nag euh, bi ci gën a euh, suufe mooy imatatul adha an tariqi moom mooy nga romb wala loo xamante ne ci yoon wi maanaam lu naan la place publique dafay nekk loo xamante ne yow da nga fay dindi lépp loo xamante ne ak xeetu euh, luy mën a gêner la maanaam loolu nga dindi ko maanaam loo xam ne kon loolu mu daal di wax loo xamante ne maanaam cër gi ñoo koy def mu waaye Euh, wal xayaa shu'batun min shu'abil iman kersa muy mu muy jëf joo xam ne kon jëfi xol la mu ne car la bu rëy bu am solo ci caru ngëm yi maanaam nga gis ne tamit kon pay nit ki tamit pay payam ci àjjana maanaam li koy alimenté li nga xam ne moom mooy cosaan parce que ñun bu ñuy jëf fii suñu jëf yi nii jëf yu baax day am ay tabax ak ay tool ak ay urul ay yu ñuy sababal biir àjjana maanaam ak mbir yoo xam ne dañ koy sababal ci àjjana yooyu nag solon yow maanaam te yooyu yëpp nag dañoo aju ci cari ngëm yi moo tax ku ko matal rek maanaam daal di matal li nga xam ne moom mooy ngëm gu mat sëkk gi maanaam daal di bokk ci waa jannaatu àddina bokk ci waa mbi yi kon da ngay gis kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne lu lu lu mat a bàyyi xel la waaye tamit li muy nekk nekk wàll googu dafa nekk tamit loo xamante ne mooy tax ba nit ki digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala incarné yooyu muy incarné tur yàlla yi ak melo yi maanaam jëf yi jëfam yu baax yi jikkoom yu rafet yi yooyu ñoom ñooy tax ba turu yàlla yi ak melo yi di di di di gën a feeñ ci moom maanaam muy gën di yëkkatiku borom subhanahu wa ta'ala di ko gën a wuj dugal ci ay payam di ko dugal ci ay xadara yu wuute maanaam muy gën a xam li nga xamante ne moom mooy turu yàlla yi ak meloom yi yooyu nag boo ko matalee muy quatre-vingt-dix-neuf yi ah, nga xam ne moom la tudd boo seetloo maanaam ajjana ah, muy cent euh, daraja maanaam quatre dix neuf yooyu maanaam euh, mu am benn centième boo xam ne mooy bi gën bi matal lépp mooy elli mooy mooy elli yuuna yi ci àjjana maanaam waaye mu am quatre-vingt-dix-neuf xadara yi pays yi nga xamante ne yooyu képp ku ko peek day dugg àjjana bi nga xamante ne mooy àjjana yi comme li a bi sallallahu alayhi wasallam daxalal janna muy quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yeeg melo yi benn bu ci nekk di mandargaal pays ci pays yi borom subhaanahu wa ta'ala mooy xadara euh, yi nga xam ne dañ ci incarné ak njaam di ci en di ci di ci aju ci suñu xol yi ci bur yalla subhanahu wa taala mu ne ku ko dajale manam day daal di meuna dugg aljana manam aljana yi njaamu yalla gu mat sekk nek jaamu yalla bu mat sekk manam kon euh moy yi nga xamantene manam mu leral mu indi ko nonu nga gis ko ni mu am processus bobu ba fi ñu toll mu ne motax mu ne ulaika fi jannaati ñom ñi ngi ci ay aljana manam ay xéet aljana yu wuté la dañoo wuté voilà moonaam maanaam ñii àjjana yi nga xamante ne lañ leen mooy yu taar yi yu rafet kii yu neex yooyu lañ leen maanaam yi nga xam ne ay bànneexu la ñii nag ñi ay àjjana yi leen di yóbbu mooy yi nga xamante ne yàlla ci boppam borom subhaanahu wa ta'aala moom moom ci boppam moom mooy jëmmi àjjana jooju maanaam nga xamante ne maanaam euh, àjjana yeneen yi nga xam ne mooy yi ñu tabax yi ñu bind yooyu euh, du àjjana yi maanaam yooyu euh, dañ dañ ñooñu ñoom ñoo ci ñoo ñoom ñu àjjana yooyu ñooy teddee ci gaa yi kay waaye gaa yooyu moom duñ teddee ci ci ci àjjana Euh, kon euh, léegi nag ginnaaw boo wax na loolu nag mu war a ñëw muy ñëw nag léegi ci beneen wàll boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la boo xamante ne yelloo woon na itam ñu taxaw ci taxawaay bi ñu taxaw ci yeneen euh, wàll yi waaye terewul rek ne bu ñu dul mën a def lépp tamit du ñu bàyyi lépp maanaam mooy borom bi nag subhaanahu wa ta'ala wax ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim famaa lilladhiina kafaruu qibalaka muhti'iin عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم من واو فما لي انا lan مودال dal مو moo xew ci alladina kafaru ñi nga dañoo suul jëf xibalaka ba ñuy jublu ci yow mu te ay na di gaawtoo ko xulli seeni bët di gaawtoo ko xullee anil yamin yi ci wàllu ndeyjoor wa anil shimal ak ci wàllu càmmoñ bi yëpp xis yi ñu nekk ñu ay ay ay mbooloo yu la wërte tàqalikoo ayatu maaw ndax dafay xemmem kullum ri im képp kenn képp gépp cam képp pasuwaay min hum ci ñoom ay yédu xala te ñu dugal ko jannata naim àjjanay xéewal yi kallaa mukk jàjjul loolu du demee noonu de inna nako ñun yàlla xalaqnaahu ñun ñoo leen bindee mimma ya'lamuna ci li nga xam ne xam nañ ko kon aay yi incha allah ci suñ jotaay bi maanaam moom la ñuy tàmbali wala bokk moom la ñuy waxtaanee euh, kon mu ne famaali maanaam kon fama ana lan maanaam mu nekk euh, istifham boo xam ne istifhaamu tawbiixi la ak eh, inkaar yi maanaam mooy day ŋàññe waaye tamit day diingat li na kafaru lan moo dal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu weddi yàlla xam nga allazina gisoon nañ ko gaa yi nga xam ne kafaru danoo wedd mooy kufr gisoon nañ ko tamit mooy loo xamante ne boo ci dugalee dara ñun kenn du ko gis te ken du ci gaaw am accès coffre couvrir coffre gis nga baati làkk yi ni euh, lan moom moo war a tax ba ñoom wala coffre coffre wala ñoom loolu la def kafaru coffre voilà couvert euh, mooy ñoom lu ñu def dañoo dañoo dañoo suul ak gi yàlla am ci ñoom borom boroom subhaanahu wa ta'ala càppaacoli gi mu nekk càppaacoli yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko loolu moom moo tax yéefir ñu wax leen yéefir mu am nag ay xeeti yéefir bokkuñu ay façon yi façon lañ eh, am na ci ñenn ñi nga xamante ne eh, ñoom eh, dañoo weddi waaye ñooñu ñoo gën a yeewu tuuti ñoo gën a xam waaye nag weddi te loolu li ñu weddi mooy yenent yi alayhi salaam moo tax ñu tuddee leen ay yéefér moo tax mu ne kazzabat qawmu nuuhinil mursalin ak kazzabat aadunil mursalin kazzabat qawmu luutinil mursalin et cetera ay yooyu di wax noonu ne nitu yent yàlla nooxi alayhi salaam weddi nañ yenent yi nitu yent yàlla kii aadi muy nitu yent yàlla huudi alayhi salaam weddi nañ yenent yi waa samut muy nitu yent yàlla saalixi alayhi salaam weddi nañ yenent yi nitu yent yàlla luuti alayhi salatu wasalam wedd nañ yenent yi et cetera maanaam nga gis ku ñooñu noonu weddi googu nga xamante ne eh, ñoom ñoo weddi ñoom lañu weddi yenent yi mooy ne benn yenent boo ko weddi da ngaa weddi ñëpp voilà mu amit ñi nga xamante ne eh, dañuy wax naan mooy ñi alquran naan inna alladina yufarriquuna bayna allahi wa rasuli wa rusulih min alladhina yufarriquna bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yattakhiduna bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan ñi nga xamante ne dañuy tàqale diggante buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak yeneen taam yi alayhi salaam te ñuy wax naan ñun de gëm nañ lii lenn li waaye leneen li gëmuñu ko gis nga maanaam ñoom am na ci yeneen yi ñu ñu d'accord gëm ak ñu d'accord la gëm wala ginnaaw ba gëm nañu maanaam yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo leen dajale ñoom ñëpp moom lañ gëmut mu amit ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla maanaam bokkuñu ay yéefir leen parce que tout simplement danoo gëmul euh, maanaam ci biir ay ju maanaam dañuy woote woo seen bopp jullit waaye nee nañ ñoom alxuraan rek lañ gëm gëmuñu xadis ñoom tamit ay yéefir lañ wala même ci biir alquran mu am ay principe yu ñu gëm ay mbir yoo xam ne d'accord nañ ne loolu baax na waaye am na yooxam ne moom dafa baar wala baaxul wala jamono laaju ko wala yooyu ñooñu tam ay yéefir lañ moo tax alquran wa yaquluna nu'minu bi ba'din dañuy ne gëm nañ ci lenn wa nakfuru bi waaye wet nañ ci yeneen yi ci des xam nga borom bi lu mu wax mu ne mu ne way taxiduna te ñu jàppee loolu bay bayna zalika sabila ñu jël loolu def ko aw yoon wu ñu jaar maanaam seen seen gis-gisin ñu doxale ko noonu mu ne ulaa'ika humul kaafiruuna haqqan ñooñu nag ñuy yéefiri haqqan piir dëgg dëgg dëgg yéefir boo ko bëggee gis xoolal waa jooju mu am ci biir xeeti yéefir yi euh, mooy mooy gis ne kon moo euh, euh, li dajale kéefir kéefir li ko mandargaal dëgg-dëgg boo xoolee benn biir kese la mooy takzib mooy weddi moo tax ngay gis kazzabat qawmu nuuhin al mursaliin kazzabat ah, weddi nañ kazzabat qawmu luutin bin nuzur voilà kazzabat aadun fa kayfa kaana azabi wa nuzur nga gis dañuy weddi nañ lay wax mooy mooy takzib moom mooy li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy lii tax nit nekk yéefir mooy lan mooy yàlla wax wala yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala lu wér ab yenent wax na ko te mu nekk lu wér te loolu ñun mënuñu ko xamee lu dul jaare ko ci yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi yow nga ñëw ne du dëgg wala gëwuma ko wala dama ci sceptique wala d'accorduma loolu képp ku ko def yéefir wala nga doyadal loo dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa am solo maanaam ci diin ci ci ci wala boog loo xamante ne sunna la doxalinu yenent la yenent bi sallallahu alayhi wasallam lenn ci sunnaam bi nga di ko doyalal di ko néewal doole ndax da ko ndax da koy diingat moom yenent bi sallallahu alayhi boobaa da ngay nekk yéefér wala nga saaga wala nga ñàkkee ko teggin wala nga ñàkkee ko xorma te lii boo ko defee ab yenent wala malaaka da ngay génn ci lislaam ni yéefér bokk na ci tamit li nga xamante ne moom mooy tax nit ki nekk yéefir itam parce que loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ko war a xam mu am solo ñu dañ donte dañ koy tënk mooy euh, li ñu tuddee ma'lumun min ad-din bi darura loo xam ne dafa évident ci diine comme par exemple julli juróom ne julli juróom dafa war ñëpp amul kenn ku ci ku ci excepté allahuma ba mu des nga nekk ku lislaam may ne yow sharia nee na la yow moom julli waru la parce que wéru wala boog da ngay gone gu màggagul wala yu mel noonu mooy charte yi ñu gisoon ci suuratu salaat charte yi nga xam ne mooy tax ñu naan eh, lii kay eh, eh, shurutul wujub la mooy charte julli war la ak shurutul wujub wa sihhati maanaam yooyu moom moo mën a tax ñu mën a ne kii kat julli waru ko wala comme jigéen ji gis mbërëk ñu ne kii de julli waru ko tey jamono jii nii te loolu dafa temporaire et cetera waaye loolu yëpp amul yow nga ni julli waru la non yow non seulement maanaam bu même bu dee da ngay julli yéefira maanaam am na différence entre kooku maanaam kii julli te jàpp ne julli waru ko yéefir ki jàpp ne sàmba julliwul mom c'est que julli waru ko moom moom kooku man waxuma sàmba moomu de mais yow yow yow mi jàpp loolu yow yéefir nga maanaam loolu te lii lu ñu xam lu ivigant la ci diine lu lu lu lu boroom xam-xam yëpp xam la loo xamante ne lu leer la ci alxuraan ak sunna gis nga. Euh, wala ku weeru koor amuloo benn ngant ñu ne waaw moom ñoom ñoom moom moom mën naa bañ a woor quoi parce que bon xam naa moom bon yàlla moo ko jagleel loolu wala mayu yàlla la amee wala yooyu wala yu mel noonu kooku maanaam waxuñu kooku de ci jàpp loolu moom ci boppam de déedéet yow mi ko jàpp ci moom yow dootoo jullit maanaam euh, loolu ay mbir la wala boog nit ki gëm ne am na yenent bu ñëw ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ko jàpp yéefir la parce que da weddi alquran wala nga gëm ay réincarnation voilà mooy ñooñ naan innama hadhihi hayatu euh, euh, euh, bimu naan bimu naan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr voilà innama hadhihi hayatu namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr dara voilà mooy mooy daxri yu ne yi nga xam ne dañoo jàpp waa ba pare jàpp maanaam gëm li nga xam ne moom mooy xeetu réincarnation tanasux ñooñu tamit ay yéefir la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam ñii ñëpp mën nañoo am diine maanaam lu ñu tuddee seen bopp ñoom diine ba pare nekk ci leneen loo xam ne bokkul ak l'islam mais ñoom ci yenn ay caaxaan la ne quoi foofu nag la ay ab bi appliqué wu la comme diine ku moo dee diine seen caaxaan yi ngeen nekkee yéen yéen a ko moom mooy diine seen xeetu dundin woowu ngi loolu ngeen jàpp seen mentalité idéologie boobu ngeen jàppee di ko jëfandikoo di ko doxal loolu ñeel na leen waliya diin man nag diine ju wér dundin bu baax di leer te alxuraan wàcce ko borom sant laa jox ma ko man yeneen bi sallallahu sala man ñeel na ko man ak ñi ma àndal euh, te mu am beneen xeetu kéefër mooy kéefër bi nga xamante ne moom kufrul ibaala maanaam mooy da ngaa lànk rek da ngaa bañ maanaam xam nga ni dëgg la mais da ngaa bañ comme lii daal iblis aba wastakbara wa kaana minal kaafiriin daa lànk bañ rëy rëylu bokk ci yéefér yi am na keneen xeetu kéefér goo xamante ne li ki tax nit ki nekk yéefér moom mooy kufrul juhud mooy lan mooy xam naa ni lii dëgg la mais bëgguma ko reconnaître parce que samay intérêt ajuwu ci mbir nga topp ay intérêt wala say aada wa jaxadu biha wastayqanatha anfusuhum man wa uluwa comme li an wax moo daloon ñoom Firawna dem nañ ba rendre compte que ni yent yàlla Musa li mu leen di wax alayhi salaam dëgg la seen caaxaanu idéologie yi ñu yor te moom mooy comme li comité yi am seen idéologie yooyu et jàpp ne ne dafa am benn yàlla boo xam ne daa war a nekk euh, yàlla bu ñu jëmmal bu war a dund ci kaw suuf maanaam Euh, te kooku noonu incarnation moo nekkoon faraw firawna moo tax firawna doon wax naan ana rabbukumul ala loolu idéologie wu diine ji mu nekkoon la maanaam du firawna yëpp noonu lañ jàppee woon seen bopp te kémit yi noonu lañ jàppee mbir mi moo tax Haile Selassie gis nga ñu jàppee woon ko comme le jaa jaa ci ñu jàppee woon ko jaa rastafari yi mooy yàlla yi rastafari yi Euh, te idéologie kémit boobu ki nga xam ne mooy kàngam bi nga xam ne mooy sang mooy kilifa yi ñi koy incarné mooy Cheikh Anta Diop sénégalais boobu te ñu bëree bëri nag xamuñu ah, euh, mbir moomu ci moom voilà ak yenn idéologie yu mel noonu yu ko jege yu yi nga xamante ne yooyu yëpp dañuy topp xeetu mbir yooyu ak ñoom seen nen Ousmane ak ñu mel noonu maanaam dafa am mbir yoo xamante ne fokk nit ñi yeewu te xam ne am na ay gra ay gravité te loolu li tax ma tudd ko nii mooy ne idéologie la yoo xam ne ñu ngi commencé tasaaroo léegi ci suñu réew yi maanaam ci réewu africain yi ñu bëree bëri jàpp nañ ne lor gi nga xamante ne moom mooy lor gi Afrique loru loru gi mu loru li leen ko teg leen kese la mooy yent yàlla Isa ak yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasalatu wasalaam alayhi salatu wasalaam ñoom noonu lañ jàppee mbir mi ni plus ni moins te lii ma wax nii benn kémit du ko weddi ku koo xamul rek moo la mooy koy weddi lii ma wax nii ku xamul lan mooy ñoom seen gis-gis yi moo koy weddi waaye kenn ci ñoom ñii du ko weddi ndax bu baax lu leer la leer la la la lu leer la foofu leer leer laa ko teg lu leer la la la laa wax amul kenn ci ñoom ku ko sañ weddi d'ailleurs dañ koy ziare moom Cheikh Anta jog foofu fi mu ne maanaam volet la xam ne ñu bari côté panafricanisme bi côté économie politique bi yooyu la ñuy xool mais dafa am benen côté moy côté diini ji ñu bari bari bari ko xamuñu ak ni ci wër wërlo te idéologie bobu nak moy idéologie bi nga xamantene euh Afrique instant bi ni mom mo commencé di jël doolé faawu nak ñu taxaw tém jamarlo ak mom parce que dafa graw bu ñu moytuul ñun bu fekkente ne rëcc nañ peut-être suñu doom yeeg suñu sëti yi mën nañ ci baña a rëcc nañ def attention ci walu boobu. mu am genn xeetu kéefir eh, gi nga xamante ne eh, moom mooy maanaam eh, ci gàttal daal maanaam pour tënk daal kéefir mu maanaam léeg-léeg day nekk xeetu bokkaale loolu beneen xeetu kéefir la mooy al mushrikuuna ñu bokkaalekat mu am beneen xeetu kéefër maanaam te biir ñooñu mooy ñiy wax naan tri affaire trinité mooy comme chrétien yi ci buntu buntu kéefër googu la ñuy dug duggaat nañ ci nag ci côté wu le fait que gëmuñu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba mu ñëwee mais ci côté wu trinité bi foofu dañ fay duggee euh, wala ñu ne yent yàlla Isa sa moom ci boppam mooy yàlla wala ñu ne doomu yàlla la kooku kéefër la la laqad kafara alladhina qalu inna allaha wal masih ibn maryam ak laqad kafara alladhina qaalu inna eh, eh, eh, Isa ibn Maryam ibnullah li alxuraan ko wax ay yéefar la mu am déggoon naa fi coow temps yële ñuy am ku ñuy créer parce que daf ko wax quoi mais mais loolu léegi loolu lu lu ko gën a nekk dëgg alxuraan la léegi bëgg ñu wax ko ñu ne léegi alxuraan ñun waratuñ ko wax quoi loolu bëgg léegi. Euh, li nga xamante ne tamit moom mooy euh, am na beneen d'ailleurs beneen kéefër te boobu bu mat a bàyyi xel la parce que lii yahuud yi naan yahuud wa qaalatil yahuudu nahnu abnaa'ullahi wa ahibba'u ñu ne ñoom dañ ne ñoom ay doomu yàlla lañ ak ay soppeem maanaam jël askanale ne ñoom doomu yàlla la te borom subhaanahu wa ta'aala nee na loolu ak kéefër la maanaam moo tax kaddu bu ñu nit ñi wolof yi naan maam yàlla loolu kaddu kifir kalimatu kalimatul kufri la ñu def attention bu ko kenn wax euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo euh, aju ci euh, baatu ci wàllu kifir moy masalan euh, nit ki ne moom gëmul ci boppam existence yàlla mooy maddiye yi dahriye yi et cetera mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kii euh, nu ñu tudd matérialiste yi mooy comme communiste yi maanaam ñi am idéologie kii bi en même temps mooy athéisme voilà mooy ilhadiye yi voilà nga xam ne souvent communisme ak athéisme ñooy ànd en général ñoom ñooy faral di ànd voilà moo tax euh, nga gis euh, gars yu bëri dañu ay communiste lañ suñu réew yi maanaam euh, surtout ñu njëkk ñi quoi mais boo leen xoolee dëgg-dëgg day xam ne ñii affaire l'islam xamuñ ci dara maam jéemuñ koo xam sax waaw dañuy xaw a waale athéisme boobu yàlla nañu yàlla sàmm kon loolu foo ko ñu def attention ci yooyu noonu. loolu moom moo tax nag alquran léeg-léeg day tudd façon yéefir yu bari moo tax boo seetloo bi mu naan wala in sa'altahum man xalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah boo leen laajee kan moo bind asamaan ak suuf dinañ la wax ne yàlla la alquran ba mu koy wax dafa am benn tibu yéefir bu mu doon wax parce que yéefir yi ay tib yu bari lañ dafa am benn tib bu mu doon waxal mais tegtalewul ne mboolem yéefir yi noonu lañ gëm parce que am na ñoo xamante ne gëmuñu sax ne yàlla ci jëmmi boppam maanaam lu ñu yàlla. wala ku ñu war a jaamu ci boppam boppam maanaam am na am ñoo xam ne gëm nañ ni yàlla am na waaye diine yi ni ñee ko créé rek bi caaxaan ak bëgg a noot nit ñi ñooñu ñëpp ay xeeti yéeféer la kon nag mu ne waaw lan moo war a tax kon yéeféer yooyu xibalaka ñuy jublu ci yow maanaam jàkkaarloog yow di ñëw ci yow mu te ay na di yooyu xullee aka gaawtu bi maanaam musriina nazirina maanaam ñu nekk ñoo xamante ne dañuy gaawtu di la xool yekkamti euh, te ñooñu melo woowu nga xamante ne moom lañu ame mu yéefir yi euh, d'ailleurs baatu muhtiina alquran tudd na ko ñetti yoon bii moom mooy bu mujj bi njëkk na koo tudd ci sooratu Ibrahima muqni muhti'iina muqni'i ru'uusihim laa yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawaa mooy ne yawmal qiyaamati yéefiri nga gis muhti'iina mooy dañuy xulle muqni'i ru'uusihim seen bopp yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu sëgg ko wa wa wa af'idatuhum hawaa seen xol nag. di fërëral manam di jeng di di di melni luy mab ngir tiitaange ngir jaxle comme li sayna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ak imam Mujahid ak ñu melni ñom rahmatullah alayhim donte am ñeneen ñuko ko firé ne musri yi dañuy gawtu lay tekki comme ni mo war nekké waxu imam Qatada ak Sa'id ibn jubair imam Hasan al-Basri mais euh, ci benen am na ñu ne ñaar yëpp la dajale euh, te loolu mën naa ne mooy moo tax ñu firé ko di di xullee gaawtu di gaawtoo ko xullee am na foo xam ne bi mu ñëwee ci sootu xamar mu ne muhti'ina ila da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir yow man xam ne muhti'ina dañuy gaawtu foofu nag dañuy gis gaawtu lañ ila da'i ca wootekat ba mun na nekk tamit di gaawtu xool xullee jaaxle ba tax yaqulul kaafiru yéefir bi day wax bis boobu yaqulul kaafiru yaqulul kaafiruna hada yawmun asir ah bis bii nag bis bu jafe bis bu jafe ngi nii bis bu metti nii bu yawmal kon ah, lan moo tax moo tax dañuy dañuy gaawtu parce que aaya bi li tax mu wàcce tamit mooy ne eh, yéefiru Makka yi maanaam dañ gis alquran di wax ñoom ne ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne eh, bu yent bi daan wax alquran dañ daan gaawtu di daw di daw doonuñu ko woon nangoo déglu ñeneen ñi daan gaawtu tamit di déglu di ko xool waaye xool googu ñu ko daan xool di ko xullee comme ni alquran wax xullee goo xamante ne Eh, maanaam xulle gi mën na nekk xulle gi léegi bu dee buy ah xullil ko léegi sànq mbokk mbokk la bay di waxee maanaam buy tekki xoolal rek ko mais wolof moom bu ne ñun wolof moom maanaam bon ñi dul léegi maanaam ka kajoor kajoor yi ñoom suñu waxee xulli dafa nekk xool bu gën a garaaw quoi maanaam xool boo xam ne da ngay bët ba pare doo ci xaw a ànd ak sago maanaam daal dañ ko doon xool xoolu. Eh, xoolu mbañeel moom dañ ko doon xulli xullik ak xullik ñoo lànk lii duñ ko def ba pare ñuy gaawtu di daw yàkkamti lu ñu nettali yàkkamti lan lañu war a xool ci li muy wax ak li muy doxale lu ñu mën a teg baaraam di ko di di baaraamu tuuma ñi nekk ci yoonu yàlla tam boo leen seetloo noonu tout le temps dina am ñu mel noonu seen côté daiman moo tax alquran ne anil yamini gis nga mu ñëw anil yamini ci wàllu ndeyjoor jaru ñuy taxaw ci détail yooyu wa anil shimali ak ci wàllu càmmoñ dañuy wax al yamin euh, di wax al maymana mooy wàlluk ndeyjoor mooy asxaabul maymana ma asxaabul maymana après mu ne ulaa'ika asxaabul mu ne mu ne li asxaabil yamin wala bo voilà wa asxaabul yamini ma asxaabul yamin te pourtant bu njëkk bi daf ne asxaabul maymanati ma asxaabul maymana voilà ak fële ulaa'ika asxaabul maymana waaye dañuy wax tamit ashimal dañuy wax al yasaar dañuy wax almashama yooyu càmmoñ la mu ne ñoom dañuy gis ci wàllu ndeyjoor ci wàllu càmmoñ fu nekk la ñuy jóge izin ñu nekk ay mbooloo yu tàqaliko ay pàcc-pàcc mbooloo ay pàcc-pàcc yu tàqaliko maanaam wër la nag loolu mooy euh, loolu mooy iza ci iza la jóge euh, ndax lan al iza mooy Euh, tàqalik mooy ay nit ñoo xam ne dañuy def ay wërngal maanaam ay ay ay ay ay ay xeeti cercle yu ndaw maanaam di ñëw nekk ay xaaj yu ndaw groupe parce que ñoom tamit noonu lañ daan def par tuuti tuuti par groupe ñëw ku nekk nag ak say façon ku nekk ak nag say doxalin ku nekk ak li la tax a ñëw maanaam du benn façon group yéefir rek ñoo doon ñëw di déedéet ay façon groupe yéefir yu bari ñoo fi daan nekk kenn ku ci nekk di ñëw di xool yeneen bi saa sallam wax ak nan ban xeetu critique la ci mën a apporter boo xoolee attaques yi l'islam yi di recevoir façon attaques yi day wuute selon façon yéefir bi voilà euh, ndax baat boobu li ko firi d'ailleurs yenn saa sam ci boppam firi ko ci benn xadis bi muy wax mooy xadisu Seydina Jaabir ibn Samura bi radiyallahu anhu bu nekk sax imaam Muslim ak Musnad imaam Ahmad rahimahullah rahmatullah alayhima yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maa lii araakum izina alaa tasifuuna alaa tasuffuuna kamaa tasufful malaa'ikatu inda rabbiha waaw lu leen tax ma gis leen ngeen nekk ay zine maanaam ngeen nekk ay xaaj-xaaj yu ndaw maanaam man ndax buñu daan ñëw di julli eh, sàppe bi boobu xamaguñu woon nuñ koy defee maanaam mais da ngay gis maanaam benn sàppe feesagul beneen sàppe ñëw ñu teg ñii nekk sàppe bi nekk ndeyjoor ñeneen ñu teg beneen sappe maanaam sàppe bi yii feesagul sax ñu ñu nekk ci yeneen quoi maanaam mu ne rek lu tax ma gis leen ngeen nekk ay pàcc pàcc nii doo leen sàppe lu leen teree ngeen sàppe comme ni ngeen ni yeen ni malaayika yi di sàppe fa seen borom subhaanahu wa taala ñu ne wa kayfa tasful malaikatu inda rabbiha ya rasulallah wa salaam ñu ko yow yente yàlla bi saa salam naka la malaayika yi di sàppe eh, ci fa borom subhaanahu wa taala mu ne yutimmuuna saf safal eh, yutimmuuna sufufal uwal summa taraasuuna mu ne niñ daan def ni ñuy def mooy dañuy matal dañuy matal sàppe yu njëkk yi ba pare dañuy tof toftaloo maanaam dañuy dañuy serré dañuy rang serré mais duñu bàyyi ay espace bu ñuy sàppe baat boobu maanaam am tamit ci biir borom xam-xam yi ñu jàpp ne ci azaa la jóge maanaam moom mooy euh, comme buñ ko askanalee dara maanaam moom mooy ay mbooloo la ñuy ñëw tàqali ko waaye kenn ku ci nekk ci ñoom dañoo askanale seen bopp ci genn wàll wala am fu ñu askanale seen bopp wala ci lu ñu askanale seen bopp wala ci ku ñu askanale seen bopp du ñu ñëw nii non non rek maanaam bu nekkee mboolo boo leen gisee ñu nekk groupe rek c'est parce que dafa am ci lu ñu askanale wala ku ñu askanale seen bopp wala fu ñu askanale seen bopp dañuy tàqali ko waaw comme le Alxuraan ba pare nag kullu hizbin bimaa ladayhim farihun kuréel gu ci nekk nag yow li se seen la fa yéen fa ñoom maanaam moom la ñuy puukari woo moom la ñuy bégee moom la ñuy rëyee borom subhaanahu wa ta'aala ne ayatma'u maanaam boo seetloo kon ay gis nga ba tey muy wax ci côté yoonu yàlla am na maanaam ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ci nekkul ngay gis parce que dafa wax ñi nitu yàlla yi ba pare nga gis muy wax yéefiri wala ñi nga xamante ne ñoom bëgguñoo dem jaar ci yoonu yàlla ñooñu boole leen seetloo comportement bi nga xam ne daa iman moom la ñuy am par rapport ak jullit par rapport ak ñi nekk ci yoonu yàlla duñu ndax ko duñu duñu ànd ci liñ bëgg ñu nekk ci liñ bëgg duñ ci to duñ leen duñ duñu euh, duñu leen dégloo ak xel xol rek la ñu leen di dégloo bu ñu paree ñu ngi seet lan lañ mën a diingat lu ñu mën a ŋàññ lu ñu mën a wax lu ñaw kese ba noppi aaya bi ci di tegu mooy ne yéeféer yi dañoo ne woon ah ñii day in daxala haula al na daxal naa qablahum mune ñi re euh maam ñi daan and ak yent bi quoi salaasalaam sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñu ne non ñi mom buñ duggé aljana ñi non ñi mom buñ duggé aljana ñun dina fekk ñun duggu nañ ba pare quoi parce que ñom dañ ko tek ci ay mbir yo xam te tegul ci dara ñom ñoy ñom diw ñom ñoy ñom wa askan diw ñom askan yax wu rëy lañ bok voilà Eh, ñoom ñoo nekk ñoo dëkk ci wetu kaaba gi ñoom ñoo nekk ni ñoo nekk naa ñoom yooyu yooyu xeetu lay yooyu nga xam ne teguwut teg teguwut ci dara ñun waa dëkk sàngam waa réew sàngam ñun ñooy waa mbooloo sàngam ñun voilà de toute façon ñun ak li nu yàlla defal non ñun yàlla moom dunu dunu dunu teg dara ñoom jàpp na ne non ñoom c' est bon loolu dinañ ci gën a ñëwaat njàngat yi incha allah borom bi subhanahu wa taala ne waaw ayatmao ndax dana xemmem ndax ak tamoo mooy xemmem xam ngeen lan mooy xemmem xemmem mooy nga bëgg mbir xër ci waaye defoo dara lu war a tax nga jot ci loolu moo tudd xemmem leneen li ci des yaakaar la tudd moo tax boroom subhaanahu wa taala daan ne innal ladina amanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillahi ulaa'ika yarjuuna rahmatallahi wallahu rahim ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu waaye ñu gàddaay ñu gàddaay jugeel ci bon dem ci lu baax juge ci li tere dem ci li yàlla bëgg jóge ci ay caaxaan gàddaay dem ci njàngalem yenent bi sallallahu alayhi waaye tamit ñuy xeex ak moyens yu mën a am seen alal seen temps seen bakkan seen lépp ci yoonu yàlla ñu investiru ci mu ne ulaayika yarjuuna rahmatallah ñii ñoo yaakaar yërmandeg yàlla ñii ñoo yaakaar yërëm rek yàlla waaye mu wax ci beneen aaya ne inna alladhina la yarduna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa annu biha ulaika ma'wahumun nar hum fiha khalidun ni nga naka ñi nga xamante ne ñoom yaakaaruñu suñu daje parce que ñi ñi yaakaar daje ak yàlla am yërmande wax nañ leen alquran tudd na leen waye ñi yaakaarul yërmandeeg yàlla yaakaaru ñoo ak yalla waradu bil hayat dunyaa te ñu doylo gëm manam ngërëm dund gu suufe gii watma biha te ñu diko banexo manam ñu diko doylo seen xel dal ci waqma amnu biha seen xel dal ci lool ah mune ñoñu ñooñu day ulaa'ika ma'waahumul wa hum an ayatina ba pare nekk ñoo xamante ne suñu aaya yi dañ koo sàggane mu ne ulaika ma'wahumun nar ñooñu day seen làkkuwaay muy sawar ñii nag loolu lan def maanaam ñoom non seulement nanguwunoo nekk ci lu baax nanguwuñu topp li alquran jàngale yéen sa salama jàngale wala nga gën ci lu dem ci lu gën a sori nanguwuñoo sóobu ci yoonu yàlla ba pare yaakaar ne yàq ma ndax day xemmem maanaam nga gis ne questionnement la ko maanaam mooy istifham la inkaar yi ak tawbiix yi ba tey day question la interrogation la boo xam ne laaj la boo xam ne day diingat waaye day yeddaati ndax dana xemmem ndax ku xellu dina def nii ñoom ñuy def kullu mri'in képp cam imra'un mooy cam imra'atun mooy ab jigéen gis nga góor ak jigéen imruun ak imraatun bokk d'ailleurs ci hmm, tur yi nga xam ne dañuy am hamzatul wasli cosaan maanaam juróom-ñaari yi nga xamante ne ñoom dañuy am hamzatul wasli voilà mooy imruun imraatun yooyu moom euh, du am hamza ci boppam moo mooy cosaanu baat bi waaye hamzatul wasl la moo tax mu ne kul limri'in minhum ci ñoom ak cam mooy waay yoo xam ne maanaam góor ci ñoom an yudd xalaat ne def na ko dugal jannata na'im ajjana xéewal moom jàpp na ne <coughs> àjjana xéewal yi mérité na ko quoi maanaam la yàlla daal moom moom moom moom yàlla moom moom moom du ko duma moom képp kenn ci ñoom noonu la jàppee mbir mi non man yàlla duma duma non safara non pour ñeneen ñi la ñu jàpp na ne buñ naan nit ñi dañuy fees safara moom moom moom d'office ñeneen ñi la ñuy waxal lépp lu ñuy wax ba ci yoon te parce que ci àjjanay xéwal yooyu da cee bokk àjjanay yoonu yàlla am na ñoo xam ne niveau boobu lañ la la la Alxuraan bi di interpeller mooy dañoo nangu wuta soobu ci yoonu yàlla nangu wuñoo def lu leen gën a jege jegeñal yàlla nangu wuñoo jaar yoonu bañ a jokk ci yàlla jaar amul den ci jikko ci yi nga xamante ne moom la ñu limoon ci ay yële weesu waaye ñoom jàpp na ne ñoom fal fa lañ bokk ñoom non ñoom ils vont y aller kenn ñoom non ñoom ñoom ñoom ñoo gën a jege yàlla yëpp pour ñoom maanaam buñ doon wax maanaam buñ génne woon tey buñ doon nit yàlla yi a mag ci seen jamono maanaam ñoom c'est que gars yi ñoo leen comprendre rek wala ñuy waxe wala ñoo ñoo xamul ñoom ñooy ñen mais ñoom ñoom ñoom ñoo gën a jege yàlla ñeneen ñi ci des c'est que gars yi comprendre luñu quoi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo gars yi naan te amul benn jikko amul benn doxale ci yi Alxuraan di boo xam ne ñoom meloo woon nañ ko amul ci li leen neex lan ne waaye jàpp nañ ni mbir mi xol la quoi xol rek la quoi affaire yi voilà et puis gars yi dañuy sonal seen bopp ay juli fii di kii di woor fii xam nga Euh, voilà xam nga di di xañ seen bopp xéwal yi fii au lieu ñu dem way gérer ci xale yi wala et puis voilà de tax xam nga rek au lieu ñu nekk ci yenn affaires yi voilà garaawul man maanaam dañuy permettre ay jëf yu ñeew yoo xamante rek nit ku ku ku normal maanaam ab jullit bu simple bu normal waru ko permettre ñoom ñu jàppe seen bopp ay nitu yàlla du bari di ko di ko permettre nekk ci let maanaam amul ci wàllu jaamu yàlla yi amul luñ ci góorgóorlu mais ci wàllu li ñu wax ne yeey mooy yàlla rek amul lu luñ ci nag luñ ci luñ ciy bàyyi noonu rek maanaam luñ ci ba rek daa fekk ne amul benn coono ci ñoom ngir ñu bako mais bis bu commencé am coono ngir ñu bàyyi ko dañuy jàpp ne dañ koy def mais que ñeneen ñi ñoom dañuy gis rek wala ñoom comprendre wuñu quoi oui c'est que affaire yi du du du yëpp quoi affaire woy affaire yi xol la tey puis Eh, gars yi ñoom comprendre luñ quoi ah, man li may gis bu ma tëddee li may gént maanaam ba pare at mbir yi nag ci ay gént loo xamante ne sa way amul lenn lenn lenn lu palpable lu ci leer voilà weddu mu ne gént am na ba am na solo ci ñenn ñi ci yenn yi mais bëgg jël sa adduna yëpp nga basé ko ci ay gént loolu tamit mënta demee noonu voilà ak a nax sa bopp ci ay mbir yu bare baree bare borom bi ne kallaa bukk affaire du demee noonu ah. ñoom niñ ko jàppe walay du demee noonu kallaa jaajul yéen a ngi fàttaliku ba njëkkee gis kallaa gisoon nañ ko ci jotaayu njëkk ba ñu leeral taxawoon ci jotaay lëmm boo xamante ne su ma juumul jotaay lëmm sax la ñu jëlaloon ci kallaa lañ doon waxtaan innaa naka ñun buur yàlla mu melal ko boppam boroom subhaanahu wa moom nekk nekkam ak ay turam ak ay meloom subhaanahu wa taala xalaqnaahum ñun ñoo bind baatu xalaqa nag fu ko boroom subhaanahu wa ta'aala di waxee maanaam day am ci ci lu ci lu mu jóge maanaam xalq maanaam nag xalaqa as-samaawaati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum inna xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqq ak yeneen ay yu mel noonu asamaane ak suuf si dañ leen bind ci deug deug gi nga xamne moy ruuhu ruuxu yenente sallallahu alayhi wasallam moy al haqiqatu muhammadiyya wala parce que bind day am ci lu muy cosaano wa wa bada'a xalqal insana min tin dafa tambale bind doomu adama ci ban wala khuliqa mimma in dafiqin nit dañ koo bindee ci ndox muy jañ maanaam xalaqa kulla dabbati mimma in ndox maanaam bépp dabba luy dukkat rek dañ koo bindee ci ndox maanaam foo di gisee maanaam mbind day am ci fu mu cosaan mu am baraa moo tax borom bi nekk albaariw ndax xal xalaqa moo tax borom bi nekk al maanaam mooy li borom bi turu yàlla boobu ne alxaaliq moom mooy alxalaaq boobu alxalaaqul alim mooy bindaakoon bi waaye mooy alxaaliq albaariw mooy ki sos mbiri amal leen maanaam moom jëmmi sos gi rek la wax jëmmi amal gi al badi'u mooy badi'u samawati wal ard mooy ki sent maanaam ki nga xam ne moom mooy maanaam wala bokk ki sos voilà fii jëmmi mbind gi la bari'u mais fii jëmmi sos gi la maanaam mooy al al muxtari'a mooy badi'a mooy al muxtari'u ala ghayri misalin sabiq mooy ki nga xam ne dafa bind amal ci loo xamante ne amul woon niiral gu ko jiitu bu jiitu loolu mu def amul woon amul exemple wala copie wala benn euh, euh, yooyu kii di defar yooyu plan voilà benn plan bu jiitu moom dafa bind te xoolewu ko fenn copié wu ko fenn kon bind googu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala bind kon dafay am cosaan waaye badiyo mooy loolu faatir moom mooy moo bënn moo fent maanaam mooy mooy bind ci cosaan ci ci ci ci njàlbéen maanaam bind gi fimu mu tàmbalee moo ko bind mooy moom mooy faatir fatara faatir as-samaawaati wal ard eh, nit mu ne dañ koo bind dañ leen a bind ñoom xalaqnaahum ñun yàlla ñoo leen bind ñoom mimma ci li nga xam ne ñoom yàlla mun a xam na ñoom xam nan seen cosaanu mbind fan la ci lan la lan la leen yàlla bindee lan lañ leen bindee ci ban mooy maam Adama suma laqad xalaqnaakum summa sawwarnaakum summa qulnaa lil malaa'ikati isjudu li Adama dañ leen a bind yéen maanaam mooy dañoo nattale seen bind ba ñuy bind seen maam Adama sawarna sawwarnaakum topp ñu defal leen ñu jëmmal leen moy moy al musawir moy ki joxe jëm ci bind ba pare joxe forme lu ne summa sawwarnaakum summa qulna lil malaa'ikati topp ñu wax malaa'ika ne isjudu li su jotal leen maanaam ki jublu ci mam adam alayhi salaam gis nga après kenn ku nek ci ñun nak mimma in mahin ci ndox mu doye di bobu wala mimma in daafik muy ndox muy jagn mu nek ci biiru yaayam mo min alaqa mu nekk luy lonk après mudra mu nekk lumbu mu nekk keetu mel ni yàpp bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yëy ba mokk après mu mag nekk yàq après yàq yi borom bi neew suma ma ko saw exemple lahman ñu daal di koy rang ay maanaam solol ay ay suux suux mooy yàpp ay suux bu dee nit suux la ñuy wax quoi kenn wax yàpp yàpp animaux yi la ñuy wax ay suux voilà après nag ñu daal di koy summa ansha'naahu xalqan aaxar ñu daal di koy melale maam ñu concevoir ku def ko créer def conception wu beneen mu nekk beneen mbindeef maanaam mu mel ni mu mel bu daal di génn ba tey nit soo jëloon euh, toq man yu biñ ko bindee moom nga teg ko nii nga jël nit ku taxaw nii nga ne leen ñaari mbir yi est-ce que am nañu lien bu fekkente ne nit ki xamutoon mësta xam ne nit ki mën nañu leen ko bindee maanaam du gis lien bi war a am entre nit ki taxaw nii di dox di def def ay soxlaam ba pare am doole ak lu nekk mu mën koo yëkkati maanaam ak toq man yu boobu du gis lien bi ak toq ndox moom non du gis lien bi borom bi di leen xamal loolu kon ñoom wedd giñ ko weddi ba pare ba bëgg sukkandikoo ci weddi googu daan ne waa même si bu fekkonte ne sax bu àllaxira amee sax ak bu àjjana amee ñun daan dem wala boog même si que euh, wedd nañ yàlla gaa waaye bon euh, gars yi ñuy wax dara amu ci euh, ñoom war nañoo xam ne du benn loolu maanaam mënta maanaam mënta loolu loolu loolu loolu loolu mënta tegu ci lu ci ci ci ci lu ndax borom subhanahu wa ta'ala daf leen a yëgal fii ne comme man maa leen bindee ci bi kon mooy mën naa leen a dekkalaat te te it boo leen nekkee ci caaxaan borom subhaanahu wa man maa leen bind ma bindee leen ci loo xamante ne lu mel noonu laa leen bindee mooy toq ndox boobu ma extraire ci ma jëlee ci lii tax nga mën a juddu mooy wallax njaan yi nga xam ne ñoo ci nekk mooy spermatozoïde yi ma jaar moom fa mu jaar moom ba ngeen toll nii ngeen mel ngeen mel xam ngeen ni moos loo leen nekk xam naa ko war ngeen a xam ne loo leen di dugg ak loo leen di génn yëpp maîtriser naa ko te war ngeen a xam ne boo leen jaarul yoonu yàlla man maanaam yoon wi tax ngeen mën a yegg ci sama pays bi comme ñi ko ñee ñi fa ñee jaare xam ngeen ci caaxaan ngeen ne te it war ngeen a jël yoon wi leen di war a yeex ngeen mën a yegg si ci man maarij yooyu war ngeen koo jël loolu xam ngeen ko kon aay yi incha allah maanaam donte a tënk la ci lañu leerale maan lañ génne eh, lañu wax ci wàllu aaya yi incha allah jot ay bii di ñëw di leen def jàngat ci aaya bi jéem a dugg ci aaya yi ci tegu def jàngat bi ci jotaay bi ci tegu tëj incha allah wallahu taala aalam wa sal allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain subhana rabbika rabbil izzati